ay maqaam yàllaw bisimil ilaay ci barkeb say ci fàddilu mi bur yàlla dolli noo ay maqaam yàllaw salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu Cheikh Talla mhm. alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin allahuma innaka taxlamu chihra wa xalaaniyati faqbal maxsirati wa taxlamu ma fi nafsi faxfir li sunubi allahuma inni asaluka imanan yubasiruni xalbo yaqinan sadiqan ata axlamu annahu la yusibani ila ma katabtu axali waridan bi man xasabtu li asal jalaal wal ikram rabbi sarax li sadri wa sa li amri waxlul xoqdatan min lisaan yafqo xawli bokk yu baax yi yéen ñi nga xam ne yéen ñuy bàyyi xel waxtu wi tembe mm-hmm. fu a toll ak jàppal ne jox naa la suma loxo xol di la nuyoo nuyoo bi gën a sakkan gën a yell làmboo na jàmm làmboo na xéewal muy baatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di ca ànd ak sunu soppe sunu xarit muy Cheikh Talla mi nga xam ne li ma ko yàgg a wax bëgg Cheikh Ibra mm-hmm. sa yaakaar ci Cheikhul Khadim di sëriñ Cheikh mi Mbàkke ibnu sëriñ Falilu yàlla na yàlla guddal aw faram te wéral ko di sunu sëriñ sunu xalifa sëriñ Babacar Sy Mansour mm-hmm. sëriñ Muntaxa Basiir ak mboolem ëttu ñii ne ñoom ñëpp ñoo leen di siyaara di leen nuyu ci baatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Cheikh Talla waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ Cissé mu sëriñ Babacar macha allah ndokkeel la ziaraat la sant la gërëm la ñaanalaat la bu baax a baax a baax di wax ni wax dëgg yàlla namoon ji waaye tamit li ñu namm namm namm namm jëm ci defe naa ni kàddu gi ñu dégg léegi moom la ñu gën a namm mm-hmm. ndax wax dëgg yàlla nee naa buñ ne Serigne Cissé mu Serigne Babacar mm-hmm. doy na sëkk mm-hmm. waaye koo xam ne tam kàddoom boo ko déggee macha allah rabbi euh, pédagogie li tubaab bi di wax pédagogie muy Serigne bëri nañu Serigne si mën nañoo wax waaye mën a jël sa wax teg ko ci kàllaama ak xikma boo xamante ni ku ko mm-hmm. dégg ku ne mm-hmm. daanaka mu am fu la toll am fu la yegg mm-hmm. nee naa du ku ne la ko suñu borom mel kon jagle googu itam xam naa ni sa sang ba sëñ ko jagleel macha allah rabbi ñu la ciy ndokkalaat bu baax a baax waaye ci jàkkaarloo gi jàkkaarloo a bég bég nañ ci lool lool lool lool lool macha allah di ñaan rek xanaa sama borom doon la taxaw amiin amiin doon la guddal gën a wéral cër yi te yokku daara ji ba mu yaatu lool ba ku nekk ci ndax wax dëgg yàlla yéene nga ci ku nekk amiin euh, bëggoon rek ñu waxtaanee waat si Cissé lenn rek ci xam-xam. Mm-hmm. waaye bala maa ñëw ci xam-xam bi. Mm-hmm. actualité dafa am. Mm-hmm. léegi nag bëri na ci coow li li muy bëri bëri li gars yi di nguru nguru mii ci suuf. tey ma wax la ko ndax man xam nga du ma nëbb dara. déedéet gars yi nee yaay Serigne Sonko. waa seetaan la xam nga toog koo xam. dafa baax. lool. waxtaanee koo xam. dafa baax. yàlla dogal na man sëriñ si sama sëriñ Babacar mm-hmm. nit ñaa koy wax waaye loola du dëgg mm-hmm. ñaana lu ma Sonko tey mm-hmm. ñaana lu ma ko suba xam nga maay ñaanal diw te ñaanalu la ko Seex Taala bu ijaaba newoon ci sa làmmañ sax nga fente ijaaba dem ko jaamu yàlla la bu ne ci réew mi am lum nekk ca dominam di ca gëstu ba jeunesse bi génn wet gi yëpp bëgg ko ca waaye loolee yàlla la mm-hmm. waaye lu sëriñ Cissé moom la Sonko ne Serigne Cissé dama bëgg nga ñaanal ma yàlla mm-hmm. kon Seex loola nit ñi di muru muru boo ñëwee ba ci sama kër gi mm-hmm. ma leeral la la loolu wér nga macha allah bismillah mu doon lu am solo ndax man nee naa moom lu gars yi di ngoro nguru mais moom booba dama laa gisut wala jotuma la moo tax laajuma la ko ndax xam naa ne te loo ma ci wax itam gëm naa ko mm-hmm. waaye tey nekk mm-hmm. da ngeen suñu borom di leen wan bu ngeen seet ak bu ngeen seetul mm-hmm. bu ngeen li si xaar bu ngeen li si xaarul ndax dafa am loo xamante ni jagle suñu borom la macha allah rabbi ma bëggoon yow nga wax ma tey ci gis-gis bi nga xamante ni am nga ko wala yëg-yëg ko sonko naka nga seen mbooloo mi nga xamante ne ànd nañoo moom hmm. ba fen yi ñu gis ci coow lu bëri lu ci amoon ci seen manifestation bi bala maa dugg sax ci manifestation bi waaye tey ñu hmm. ban yëg-yëg nga am ci Sonko ndax ñu samay dégg sëriñ su bëri yu wax naan Sonko nitu fitna la boo addatee turu yaayam boo boolee turu baayam nangam nangam bëri na daal luñ ciy coow non buñ seet di ci xadat hmm. turu yaay turu baay ko gaaw a jël ci yu mel ni ci jamono ok li ma la mën a soo ko jaamu yàlla la làkkat la mm-hmm. te gis nga yàlla comme que moo jàngale ci alxuraan ne mm-hmm. qul lillaahumma mamaalikal mulki mm-hmm. tuutil mulka bi man tashaa seetaala nguur ci loxol borom bi subhaanahu wa taala la nekk nguur nag booy dégg baatin ni baatin nekkee sekkare ni la nguur nekkee sekkare yàlla mooy seet ci ko neex mu yenkeewal ko ko xañ na politique moo ànd ak yëngu-yëngu mm-hmm. waaye bu fekkoon ne man Serigne Cissé mu Serigne Babacar Sy mm-hmm. wàllu baatinu Sonko dama bokk ca ña ko yor mm-hmm. Sonko nii muy doxalee du ko doxalee dama koy récupérer luy fulla dinaa ko ca génne mu dugg wax jàmm ndax ko am loo diggee ak jàmm ñi faaw mooy communiquer ñoom waaye tout le temps ki ko war a doon leader ëllëg. borom hmm. day wax ne ku ñëpp xam foo jëm doo yegg te soo ko la xale la. Hmm. am na talent communication maa ngi fa njàng maa ngi fa. Hmm. kon lan moo koy desee protection lay am rek yegg fu mu jëm. kaalandi bu ko gunge. waaye actuellement fi may waxtaanee yow Cheikh Talla. li xew ci Sonko wax naa ko. ne Sonko baa muy d'accord wala baa muy xam li xew. Mhm. day mbëkk miir ba ba pare soog a xam li xew. ndaxte actuellement fi mu toll nii. Mhm. mu ngi demee fugu. Mhm. te foofee bu teg yëf yi du foofa. la ma ko man en tant que Serigne Cissé mu Seydi Ababacar ji. na arrière. te bañ a songe. ndax bu songee mën naa ñaaw. kon bum songe. waaye ci cadre xadat nañ turu baayam xadat xadat nañ turu yaayam xadat nañ Sonko jox nañu jox nañu fitna mm-hmm. bokkuma foofa bokkuma foofa Cheikh mm-hmm. li ma gis daal mooy ne mm-hmm. actuellement li mu nekkee gënul ci moom dëgg gënul ci moom ndax ndax bukki buy wër buy wër buy wër buy wër mbote si mbay bëgg na ko jàpp te bu ko jàppee balaa nit ñi yëg li xew mu faagaagal kon Sonko na arrière mm-hmm. bu arrière Cheikh Talla mm-hmm. dina gën ci moom dina gën ci ñi ko bëgg mm-hmm. bu arrière du gën ci moom lu gën ci ñi ko bëgg foofu laa yemale bu mag yow ci mbiru Sonko macha allah mu doon lu am solo Serigne Cissé wax nga ci li nga xam ne moom nga ci xam moom nga ci yëg itam te dëgg yàlla li nga wax itam fi ne am na ci foo xamante ne fa nga ko teg te wax dëgg yàlla tamit conseil la boo xam ne bu mucc ayib la parce que nit tam boo ko bëggul wala yéene woo ko jàmm itam fi ne wax dëgg yàlla defe naa lii nga wax itam doo ko ko wax mm-hmm. parce que nit moom buy dem war naa mën a am ci fu mu tegu mm-hmm. am yu ko gunge mm-hmm. ba mu mën a atteindre objectif bi nga xamante ni moom la bëgg macha allah rabi. Mm. mais tey jii dama gis barki démb boo njaay mu génn loo nit ñi après manifestation mu génn loo nit ñi fëgg loo leen ay kubéeru ci nag ay kubéeru bool. Mm-hmm. loolu ban conséquence la mën a def ci moom wala ci borom nguur gi wala ci ñun population Sénégal. waaw xam nga seetaan euh, baatin. Mm-hmm. dama foogoon ne bëri na ci réew mi. <laughs> dafay néew mbaa waaye daf fee néew. ndeysaan. seetaan la maanaam conséquence ba nga xam ne. léegoo léeg sëriñ si indi empereur indi ko ci réew mi lu waroon a doon cinquante ñu def ko cent. Mm-hmm. ndax lan ñii objectif bi ñu am. Mm-hmm. mooy ne am na lu lu leen naqari. Mm-hmm. bëgg na noo taxaw ci pénc mi bëgg na noo am fenn fu nu taxaw jooyee ko fa ñu ne du ngeen ko fi jooyee. ñu ne nan ko def ci beneen phénomène gars yi bëgg cee occasionné wu ne lii buñ ko defee dana doon dana daane gouvernement. dana daane nangam. ma wax leen ne. kanaa danoo fàtte ne yàlla. bi mu bind naan xulli laahuma ma maalikal mulki. tuxtihu mulka mi man tashaaw wa mulka mi man tashaaw ba ila axtee. wala danoo fàtte aaya boobu. aaya boobu képp koo xam ne gëm na ko Cheikh bul foog ne cin mooy fal doomu aadama. bul foog ne cin mooy folli doomu aadama. Mm-hmm. tojal am na. Mm-hmm. ndax lu mel ni ndënd buñ ko tëggaat ba nawet bi dañ naan nañu aj ndënd yi. Mm-hmm. lu mel ni am mbiib. Mm-hmm. muy sifflé. baaxul am na lu muy def ci nit. Mm-hmm. waaye lu mel ni yii ñu doon tëgg xam nga la la man ci dëkk bi. fu jinne nekkoon ci dëkk bi yeewu. jaxasoo jàmm yi. lii ñu def barki démb mm-hmm. xam nga lu man mm-hmm. fu jinne nekk ci dëkk bi ak i rawxaan daal yeewu jaxasoo nit ñi problème yi gën a yokk waaye duwul loo xam ne day jóg ñu naan état ba daanu na état ba yëkkatiku na mm-hmm. moo tax ñaare ñu daan bañ kuy jël potu ndagg mooy potu tamaate yi ñuy bañ ku ko tëgg ndax day indi crise ñuy bañ ñuy bay ku tëgg ay bool rawatina ku benn ne armi mm. ñu bu doon ne koo xam ne dafa dem ku ñëw ci yaw dem ba génn nga diril ko ci dana waral lu gaaw a dellu si. dellu si kon kon baatin dafa am. Mm-hmm. huwa awalu aqiru wa zahiru wa baatinu. Mm-hmm. baatin lu am seetaan la waaye conséquence boobu ñu indi. Mm-hmm. bëgg koo dëgmal ci jaam ñi loola loola loola wérul. wérul Cheikh Tall bisimilah. macha allah. Hmm. jërëjëf Serigne Cissé mu Serigne Babacar moom la àndal ci biir waxtaan bi wax dëgg yàlla ak waa Salam Vision waaye itam ba tey di leen wax ne rek ñi ngi nekk itam en live fi nga xamante wax dëgg yàlla ci réseaux sociaux yi lu ci mel ni TikTok bi wala Instagram beeg yooyu ñi ngi fa en live di leen wax ne rek yéen ñi nga xam ne yéen a ittoo bëgg a jokkoo ak ki nga xamante mooy Serigne Cissé mu Serigne Babacar ci wàllu mu ci a doon mooy ci boo xamante ne sa borom dogal na boo jokkoo ak moom ci numéro téléphone bi man dana la ci taxaw defal la ci kéemtulaay kàttanam la ci des ñu wàcceeg yàlla lam ci mënul itam dana la xamal ni mën ko ndax moom loolu noonu lañ ko xamee lu mu mën da dina ne mën naa waaye bu mënul dana naan seetal keneen wala mu tegtal jox lay tegtal nga daan cay dem numéro téléphone bi ñu ko mën a jotee itam mooy 77 297 69 51 77 297 69 51 mooy numéro téléphone am bi nga xam ne daanaka ku ko ci woo incha allah rabi di nga ko ci jot nee naa leen nag moo leen amul secrétaire amul <laughs> dara moom daal boo wootee direct moom ngay jot fi mu toll nii kon mi ngi doon daal taal macha allah rabi mais seen Cissé bala ma bëgg a jeexal ci ci ci wàllu euh, ak ñoom manifestation de ñoom hmm. ñàpp jàpp nañ le benn dañoo fas yéene manifesté waat hmm. te nee nañ bi yoon xaaruñu ñu jox leen autorisation ak ñu ñàkk leen a jox autorisation dinañ génn wane seen bopp est-ce que loolu fi ne dina jur jàmm ci réew mi ak bu ñu xoolee ak liy weesu ci ginnaaw fan yi weesu. Cheikh Talla. Mhm. politiciens yi buñ ne bëgg nañu réew mi man dina ma jaaxal. ah bëri nga ci ma ndax actuellement fi nu toll. Mhm. ñuy waxtaanee lu mel ni tabaski. Mhm. jaami yàlla yi nekk fi ñii buum amaguñu ko sax waxuma laa xaar. Ah, wallaay man ñii ngay waxal. Cheikh Talla ne moom mi toog nii sax. dëkk bi boo génnee foo jaar xar la nga dem Sandaga jaam ñaa ngi fa di daan seen doole nga dem Colobane jaam ñaa ngi fa di daan seen doole nga dem aslem foo mën a dem ci réew bi gol tàppe foo man a dem rek gaa yaa nga fa mhm. yow politicien bi nga war a xelaat ñooñu ñëpp xam nga lan moo doon politique bi jamono ji ñu toll mhm. mbooleem kuy politique waxuma opposant waxuma pouvoir mhm. mooy ne trente wala cent conteneur soble ngi nii wàcc. wallaay ndeysaan. cent conteneur u pompiteer ngi nii wàcc. Mm-hmm. xari nangami camion ngi nii wàcc. Mm-hmm. nga séddale ko jàmm yàlla yi. waaye actuellement la vingt neuf di suba. Mm. nga ne buñ ma joxee ndigal dinaa génn buñ ma joxul ndigal dinaa génn man de génn ko ko bu génn bu amee. Mm. buñ ne ni lii Sénégal la xewee ku dëkk senegal jooy ku dëkk hmm. wax naa léegi ci benn waxtaan ne réew mi ku fi indiwaatoon Cheikh Seydil Hadji Malick ne ko tiwaaw ne ko Sénégal a ngi nii mu ne la déedéet hmm. sëñ Touba Cheikh Mat Bamba mu ne la déedéet hmm. ma kunta Njaasaan mu ne la déedéet Maolana Cheikh Ibrahim mu ne déedéet góor gi ci yox Limaamu Laay mu ne la déedéet kon ndax lan ndax soppeeku ko xaar karam bi Sénégal yor jamono ji ñu toll. Mhm. seqtaa la ñaaw na. Mhm. politiciens yi bëgguñu kenn seen bopp lu nu bëgg ak seen njaboot. Mhm. jeunesse bi nañu bañ ku leen foxee. di leen jël di leen def armée di leen xeexloo di leen xeexloo nañu ko bañ. te kenn ku ne dañ ne fukki fan ak nangam moo des ci julli gi ku ne sa waajur a ngi taxaw naan sama doom ji léegi mu ñëw. mu yàkkat yi nga yegg si mu na la ana mbokk ya hmm. nga xëy ñu ne la sa doom bum nañ ko wala jàpp nañ ko kon ndaw ñi nanu reculer hmm. te bàyyi politiciens yi ñoom ñi dem jëfali seen bopp surtout waaye lii ñu leen di wax hmm. ki yéeg la ak ki bëgg a yéeg kon ñaar ñooñu nañu leen ba ñoom ñaar ñu xëccoo seen xëccoo ñu xëccoo seen xëccoo képp koo xam ne nag am na koo bëgg ci sa xol te la wax doy la. Hmm. bu bis baa jëlal sa carte. Hmm. nga dem woote ji. waaye lii nu bëgg a def. Hmm. fitna rek la ñu jural nit ñi. nanu noppal nit ñi politiciens yi moomu nu réew mi. amul pouvoir amul opposant nanu noppal réew mi. jeunesse bi ñu bëgg a génn ci biti ndax man damay faral di wax ne. man Serigne Cissé mu Serigne Babacar jeunesse su réew mee ma ñor. du ma nangu kenn ku leen asaaloo mooy xam ki nekk ci diaspora bi la moo xam ki nekk ci diggu réew mi la kon nanu nanu moytu ndaw ñi nga xam ne lañ bëgg a jël def leen armu di leen ne xeexloo ñii ñu bum leen ñii ñu jàppale tëj leen ci kaso yi seeni waajur nekk ci ay jaaxle suba nag bu nu génnee ak ku ca génn lu la mën a def yaa ko teg sa bopp ndax gars yi waaj nañu te nanu sóor yi ci ñi ñi indi ay seen xar di ko jaay. wallaay ñi ci marché yi di wut seen doole. Hmm. nañu leen sóor te bañ a bañ a jiital seen i bakkan yii. Hmm. seen bëgg-bëgg bopp dongale tax di reyante. Hmm. kon jaam ñi. fàttaliku leen yàlla. te toog ànd ak daal yàlla noppi na ci lépp. wallaay ndeysaan. yàlla noppi na ci lépp. noppi na ci ki war a doon président. noppi na ci lépp. adduna nag ku fi ne lii dal waa adduna dal la kon nanu ànd ak dal jeunesse bi kenn ku ne xam ne sa waajur la yónni ta la laa yàkkamti mm-hmm. nga bañ a génn ci yii mm-hmm. surtout bismillah Cheikh Tall macha allah sëñ Cissé message boobu am na solo waaye conseil bi tamit am na solo loolu macha allah rabbi hmm. mu mel ni rek fi nekk ndaw ñi danañ la dégg ndax gannaaw yàlla dogal nañ ñoom ñoom li ci ëpp ñoom ñi ci réseaux sociaux yi hmm. macha allah waaye dafa am foo xam ne da nga laal léegi hmm. mu am fu ci lu fu mu yóbbu sama xel euh, nga ne bu ñu bëggoon réew mi danañ dem uti ay conteneurs yi soble indi ko wala conteneurs yi pombiteer wala uti ji ay xar fexe ba askan yu am ci waaye ñu gis ni tey ji kii di soxnaat njiitu réew mi daanaka keroog dañ ko xool ci ci ci réseaux sociaux yi. Mm-hmm. gis ne dafa am ay nit yu mbubboo turam. Mm-hmm. dem daal ne première dame nee na ngeen def seen demande yi ñëw mu dimbali leen ci tabaski yi. Mm-hmm. ba mu jaral ko mu génn. ndax nee bi mu demee ba bi mu demee ci agence am ca bureau bi fekk lañ fa indi ci ay xeeti demande toll na ci ay millions yi junni yoo xamante ni kenn xamul nu mu toll loolu président sax mënu koo saafara. waaye Serigne Cissé. li tax mu ñëwaat ci sama xel mooy da nga ko wax léegi nii. Mm-hmm. moom nee na bi mu ñëwee xool ko ba téen ko maa ngi vidéo bi mu doon waxee man. Mm-hmm. waaye nee na bi mu xoolee moom dafa am dafa mujjee yéemu ci yàlla daal ne xamul ki ko def xamul ñi ko def waaye bàyyi na leen ak yàlla. Mm-hmm. waaye nag moom du gàntal kenn. du bañal kenn. waaye démb dégg naa mboolem la ëpp ca ña ña doon sàkku si ndimbal ci moom ci tabaski bi. lu mu néew néew néew néew xaaj ba defoon demande bi ku ci ne yëkkati na fukki junne ak juróom-benn dimbalee la ko ci julli gi. jërëjëf nga jàngatee loolu. Cheikh Talla moo tax may indi question bi ndax sa xarita. Cheikh Talla. Mhm. ki yàlla dimbale jox la million. Mhm. joxu la ko pour yàgg sa kër. Mhm. dala koo jox ngir ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw. wallaay ndeysaan. Adja Marème loolu mu def rek la war a def. na seen ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw lam ca man mu def ko ca. lu mënul mu toog mhm. yàlla yàlla gën koo dooleel ak ñeneen ñi mel ni moom ci dara ji yonent alayhi salaatu wasalaam ñi nga xam ne nag dañuy ubbi ay compte yoo xam ne ci turu jàmbur la ñu koy def mhm. nanu ba loolu mhm. kuñ ci yëg nag ba jàpp la ci sa famille ngay sonal rek kon nanu bal loolu Cheikh Talla amul njëriñ amul njëriñ wallaay bisimila am na solo loolu macha allah rabbi moom it noo koy ñaanal bu baax di ko ndokkeel di ko ñaanal moom it sama gën ko ko mën loo ndax wax dëgg yàlla doon na loo xam ne duñ neguleet ndax yàgg naa jëf taxawu doomu aadama yi ci hmm. wàllu woo xam ne parce que woote yi mu daan woote yëpp mooy ñi nga xam ne hmm. ñu ci bëree bëree bëri bëri waaye am ñoo ne ñoo ko def mooy li nga wax léegi hmm. te defee wuñ ko ci ndigalam defee wuñ ko ci lu mu yëg xanaa dañ koo def ba noppi moom mu doog ko yëg mu jóg dox ak tànkam dem ba seet gisal boppam waaye teewul ba jëf na ca lañ ca war a jëf kon ko a baax macha allah mu mel ni soppeek am di jàmm yi maanaam bëri na ñoo xam ne suñu tey ji ñu ngi laay fi mu noonu ci yow wax dëgg yàlla am na fi say xarit yu mm-hmm. moom nee na yaay idoolam ndeysaan macha allah noonu koy nuyu bu baax di ko siyaar nee na moom yow yaay idoolam mm-hmm. kii tamit nee na allah sëriñ taalibe sëriñ mm, mm, sëriñ Babacar Sy bi mm-hmm. waxtaan yi am na solo macha allah ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp xam naa dinañ dikkaat ci ñoom bu ci kanamee tudd seeni tur ndax nag wax dëgg yàlla kii wax moom ki koy moom moom jël nga ci sag jot mu néew mu bëri hmm. jagleel leen ko toog hmm. di ci waxtaan tollu hmm. tolluwaayu réew mi fexe tey joxe ay conseils yoo xam ne kenn ku ci ne bu amaana boo ko dégloo mën na koo jëriñ boo lëggee kon tamit wax dëgg yàlla ñoom dañuy sawar ci déglu bi nga xam ñu ngi la koy déglu sëñ si seen waxtaan tuuti ci wàll woo xamante ni dafa lëmbe réew mi man ma xam la bu baax akas néew ci li ma la xam xam itam lañ ci mën xam itamit fa nga bokk ak ñooña lañ ci mën te defe naa mi ngi bëgg a lëmbe réew mi sëñ si ñu koy wax impuissance sexuelle maanaam néew kàttan mhm. wala gaaw a jot sa bopp mhm. euh, wala wala wala wala foo foo foo foo bu bëri ba mujj dawle mhm. sëñ Cissé loolu mi ngi toj réew mi te bëri waa na tey ji kër yoo xam ne yëngu na yënguwaay boo te ni fi ne liñ ci mën a wax li ma ci woon mën a wax yëpp bëri na nag bés bu dama jot ci kaa lan nga ci mën a indi fi na ci Cheikh Talla dañuy sant yàlla dolli ca lanu santoon waaye mu mel ni li nga wax damay faral di wax ne gars yi am nañu dépense poos waaye amuñu dépense biir néeg. biir ndeysaan. yàlla mi dara tëwul nag. Mm-hmm. Serigne Cissé yàlla yenkeewal ka ko neex. Mm-hmm. yàlla jox ñu ci ñaari façon benn bi ci téereb yàlla bi beneen bi mu jox ni ko ci mbiri sunguf mm-hmm. liñ ciy dimbali ci ay nit ci biir néegu sëy kenn xamul nu mu toll. yow mi nga xam ne yaa ngi may seetaan wax ji doy la. Mm. te mu wér ci sa nopp bi. Mm. contacté ma boo ma contacté da nga am dépense su poche. Mm. da am dépense su biir nii. wallaay ndeysaan. lañ la ciy jox bu ñu la ko joxee. feeg yaa ngi ci àdduna di nooyi problème mu sëy moom dootoo ko amati. incha allah dem soob na yàlla. macha allah Cheikh Talla ci ñaari façon. bii ci ci yàlla bi la bii sunguf la. ñaar yëpp la nuy boole jox la ko. ndax téereb yàlla bi moom nga koy naanee sunguf sa mm-hmm. problème bu mënoon a fekk ci yow ci wàllu sëy bu dee rab la bu dee xala buñ la takkoon la bu dee lu mën a doon hémorroïde la wala chute la lu mën a doon da koy raxas mm-hmm. ba nga nekkaat insha allah fa nga war a nekk mm-hmm. dëgg sëy bu baax insha allah Cheikh bismillah macha allah bokk na ci tam question boo xamante ni moom newoon naa du def jotaay ba jóg ak yow te duma la ko laaj ndax te ji damay faral ñuy dégg ñuy wax naan euh, wax dëgg yàlla euh, ni muy tëlee est-ce que jigéen tam day tëlee noonu. waa xam nga góor day tëlee. Hmm. jigéen dana doon jigéen yor li jigéen yor di ànd ak góor te du yëg li di yëg dara. Hmm. kooku mooy tëlee jigéen. mooy tëlee jigéen effectivement. waaye am na lenn looy jëfandikoo ci xam-xam. bu fekkoon ne yow raba tax booy sëy ak nit muy métti mm. wala raba tax doo yëg bànneexu sëy mm. wala lum ci mën a doon sëriñ Cissé bu sëriñ Babacar Sy décanté situation ya tëleeg jigéen lii rekk la mm-hmm. mooy booy si séq ak sa borom kër mm-hmm. nga war a yëg bànneex doo ko yëg mm-hmm. ngay séq ak sa borom kër war a mu war a yëg bànneex muy metti ca yow tëlee jigéen fii la bu dee rab la ak lu mu mën a doon. Hmm. woo ci Serigne si mu Serigne Babacar Sy. boo ko ci wooyee incha allah ne som na yàlla yàlla miy kàttanal jaam dinañ la jox siru boo xam ne boo ko defee yooyu dina dégagé wu incha allah ne som na yàlla. Hmm. leer na. wallaahi bismillah. macha allah mu mel ni seen Cissé daa mel ni fi ne daanaka gars yi yow lañ doon xaar ci wax dëgg yàlla ci jotaay bi. Hmm. ndax euh, ñi ngi ñi ngi bëgg. ñi ngi bëgg soppe yeeg am di jàmm yi ñi ngi bëgg euh, Omar Omar Omar Omar Kébé Mbaaw ndeysaan sa xarita nee na lool wax dëgg hmm. yàlla mi ngi ni moom it yónnee na message hmm. nee na yaa ak idole lam nga wax dëgg hmm. na yow moom yow yaay sëriñam macha allah rabbi <coughs> ku ci mel itam allahuma euh, amin ku ngi na nee na waa Omar Cissé moom moom bu mbaaw waaw mi ngi nii nee na man la Omar Cissé bu mbaaw Ablaye Ablaye Kébé moom nee yàlla yàlla guddal sa fan euh, ki nga xam ne tam mooy xujja ca maam waat nee na nee na salaamaaleykum ay waay bopp bopp trois ans <laughs> laa yor ndeysaan métti woo oh, ndeysaan sëñ Cissé xam nga live yi xam li tax mu doy waar hmm. mooy xëy na euh, am na ci jaam yàlla yoo xam ne ci lañ mën a occasionné wu pour maanaam wax seeni soxla wax dëgg yàlla. xam nga na jël numéro bi. moom laay bëgg a joxe waat nii parce que moom sax loolu la wax dafa ni damaa soxla numéro bi. numéro bi nag. xam nga méttitu bopp. méttitu mm-hmm. biir. Mm-hmm. jarul naan sëñ bi fi nga dëkk laa bëgg a ñëw. ndeysaan. tollal fa nga toll mm. lu mën a nekk ci sa jëmm mm. bu dee rab la mm. wala ngelaw la fu mën a doll tollal fa nga toll loolu yëpp bàyyi la ci naka ci la ci téere bi yàlla bi ci yàlla ak bëri bagage xam nga téere bi yàlla bi mm-hmm. yàlla xam na huwa mm-hmm. dégg nga mm-hmm. bi nag pour tur yooyu am na mujjee ko dégg nga turam yooyu nag pour ñu woo ko ci la wallaay Latif taala pour lan la bëgg ñu ne ko taala muuyu waaw waaw waaye Latif kon ku ko moom yàlla rahmaan ji moo ko moom rahmaan moo ko moom rahim moo ko moom lépp nag mu dëxañ ko ci allahu lépp mu dëxañ ko ci allahu yow mi am métti ci bopp mhm. man indil nañu ma nit ñu ne dem na ci sa nit mu seet ko ci wàllu tubaab bi ñu ne kii day wàcc liggéey bentoo hmm? wallahi alxasim mu ngi may seetaan. kon dañoo fàtte góor gaa ngi fii ci jas. yàlla def nu indil ma ko bi nu ñëwee. Mhm. tombeeg ma war a génn keroog bu ma juumal li ma soloon nii la mel. may génn rek toujours nuy wàcc. mu ñëw mu toog mu ne dañ ne kii dee day wàccu liggéey. ma ne ko yàlla paase na foofu. Mhm. alhamdulilah si tey siir yàlla bu seen maam Cheikh Seydil la Malick mhm. alhamdulillahi si taysiri yallahu nasmada rillahu yallahu yallahu yallahu sali salatan lantiha allah waaye sallim ala almustafa yallahu yallahu yàlla defit moom ca boppam ba jamono bii may waxtaane yow mu ngi fi nekk fi te boobaa léegi def na ñetti at te problème bu bopp lañ ko waxoon ne moo lay génne àdduna loola day dëñ mm-hmm. day dëñ day dëñ incha allah incha allah rabbi jërëjëf Serigne Cissé mu Serigne Babacar macha allah loolu la nga wax moom kenn du ko dindi te gisuma keneen ku ko mën a dindi ndax mm. lépp si suñu borom la tënku taw mm-hmm. yàlla ci turam Michel yooyu la ko def mm-hmm. macha allah rabbi mm-hmm. kon yéen ñi nga xamante ni yéen a bëgg soxla ki nga xamante ni mooy numéro Serigne Cissé mën ngeen koo woo ci 77 297 69 51 77 297 69 51 incha allahu rabi taala mooy numéro bi nga xamante ni boo ci wootee di ko jot te boo ko jotee jot naa ne fi ne lépp loo xamante ni doon na sa soxla wala doon sa bëgg-bëgg boo ko ko waxee moom mu wakkeelu ci suñu borom yàlla mën na cee def tawfeex incha allahu rabi ba nga am ci ndam kon nag mi ngi noonu kon bu leen ci képp koo xam tam am nga lu la jaaxal wala loo bëgg a laaj itam boo ci wootee rek bu soobee yàlla di nga ko jot boo ko laajee yoo xam ne wax dëgg yàlla am na solo seen Cissé hmm, beneen bi ci des mooy da nga ko tudd sànq ci sa biir wax parce que li taxoon may indi problème mu néew kattan hmm. dafa am soxna su baax su ma waxtaanal mu mu ne ma benn la mën ci man hmm. te benn ba sax fi ne daanaka dafay gaaw lool te bu paree du mooyu na tëdd na nelaw man mosumaa yëg sama bopp kër bi ma takkee ba tey ji mosumaa jot sama bopp seen Cissé mu wax ma ko mu am fu mu yegg ci man lool ma ne ko danaa la laaja loolu gannaaw maa ngi dem ci borom xam-xam yi di waxtaan ak ñoom hmm. danaa fexe ba laaj la ko looloo tax may di laaj bi hmm. te dafa mel ni am na loo ci dund ci tontu bi waaye ba bëgg nga tontuwaat ci moom laajam bii mu laaj hmm. ba xam fi ne moom lan nga ko mën a saafara moom wala borom këram waaw xam nga sëy sindit la sëy sindit la sindit nag kerek bu façon borom dootul sëy ah, waaw sindit dafa am lu koy tàllal ñaar bu sindit tàllaloo sëy bu sindit tàllalu borom nit dana nekk boromum jëkkër di xat tout le temps. Mhm. di xat tout temps lu mu xam def ko te du mel saa su ne day mel ni tey la doog a dugg ci sëy. wallaay loolu yëpp ay mbir la. waaye du waxi kaw nag. Mhm. waxi suuf la. Mhm. yow mi am problème booba. numéro bal ki baax na écran bi woo Serigne waaye maanaam mbir mooma. la ma ci borom bi yenkee woon ma man koo def ci émission. moom kese kese mën nañ koo def émission te lu jeex. wallaay ndeysaan. junj nag doy na borom xel yi ndax yàlla bi muy wax ak daneen borom xel yi laay wax ak mhm. man ñi am xel te am conséquence boobu mhm. nanu woote ci boobu numéro incha allah rabbi mhm. numéro bi nag mooy 77 297 69 51 77 297 69 51 mooy numéro bi nga xam ne mooy numéro Serigne Cissé mu Serigne Babacar am mooy whatsapp bi mooy lépp incha boo ko woowee ngeen daal di jokkoo ci lépp lu mu ci mën a doon incha allah sama borom daal hmm. nga toog hmm. euh, ni mel hmm. wax dëgg yàlla mooy émero yu dëngu tudd yéen si sa kër yu bëri. tas nañu tas mm-hmm. te li ma lay wax yow yaa ma ko gën a xam bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. te sëñ am na loo ma mos a mosal ci émru yi. Mm-hmm. te booba man damaa dégg nit di jooy jàngoro yu émru yi. may ñaan yàlla yàlla bu ma dal. nga am loo ma ci mosal ne ma kon baax na yow demal. waaye la ma mos laa bëgg gaa yi mos ko. wala nga junj leen ñoom ñu xam ko ba mu ñëw si ko. waaw xam nga seetaan la. yàlla mi dara teewul ñun doomu village waalo ci àll bi lanu dëkk. foofa laa jëm nga jeexalee bul ci wax dara. yow mi nga xam ne da nga émori. Mhm. bari na lu seen awra di dellu. Mhm. ñu jiiñ ko rab du rab. ok boo demee ci suufam am na picc bu fa nekk di màgg di wàcc awraam di dellu ñu ne rab la te du rab. Mhm. si ci ak émori mag ak rakk la moom. ok si dig émori mag ak rakk la moom. siti mooy rakk ji mooy dem ba wëlbatiku dem ba def chronique nekk émori mm-hmm. tur wa changé wu mm-hmm. bu dee ci village nga dégg ñu ne da ngaa kuli kuli kuli mooy kuli nga dem ba mu gis sa yaram bi commencé xëpp di xolliku di xolleeku wala di xar di sotti di xar di nangam di sotti ndox mm-hmm. loolu nag mooy dem ba mujj gi mu daal di nekk mujj nekk changé wu tur nekk émori émori ba nag bu dee jigéen la dana téye buutitu njurukaay bu dee ku ku góor dana téye kàttanam ba dootul sëy hmm. awraam di dellu yow mi koy jàmbatu émori hmm. e day dem ba génn ci yow ñu am ci benn diw boo xam ne boo ko xasee ni def ci sa suuf fi picc bi ne hmm. picc bi day dellu te kenn du la opéré te du am benn conséquence te awra fa mu nekkoon di fa dellu wér na kon bisimilah macha allah ndeysaan soxna Khoudia nee na yàlla na yàlla fay leen macha allah rabbi jël na numéro bi xam naa du ñàkk moom boo paree ci live bi incha allah di daal di jokkoon ndax moom mm-hmm. itteem ji ñor na ko wax dëgg yàlla mm-hmm. ak ñeneen ñu mel ni moom ak ñeneen ñoo xam ne sax ndeysaan boobu moytu seetaan nañ ko waaye fi mu ne amaana mën nañoo seetaan live bi nii fekk seen soxla tuddaale nañ ko ci biir di pour yàlla sa borom fexe bañ gisante gisante ndax damay faral di dégg sa kàddu nga naan fi ne koo xamante ni sa borom dafa aajoom yàlla bu ma jot ci yàlla bu ma jot téléphone ba di ma gis fa mm. Mm. donc moo tax ma xam ne na lu mucc ayib kon live ni a muy a yegg si eh, sëñ Cissé li nga xamante ni tam wax dëgg yàlla bokk na ci li nga xam ne bëggoon naa ko laaj tam muy ñàkk am doom mm-hmm. ñàkk am doom. Mhm. ci góor damay faral dégg ñu wax ni rab mën na koo def. Mhm. waaye ndox mu baaxul tamit mën na koo def. Mhm. lan nga leen mën a dimbale. ndax da nga bëri ay réew mi loolu te xam naa li waral turandoo yi. seetaala léegi dama ciy waxtaan ak nit. fekk jigéen moomu woo. ne ma dama bëgg doom. ndeysaan. ndax damay faral di wax ne ci Cissé li ko fi ba damay faral di wax ne dama bëgg a wax tey wax suba. lay waral nag ma mën a wax tey wax suba mooy di wax xaqiiqa oh. di wax xaqiiqa mu ne ma dama bëgg tuut tànk mm-hmm. ma ne ko tuut tànk nga bëgg mm-hmm. ñaari jigéen dina topp di faju foog ne conséquence bi ci moom la te fekk góor gi daa war a faju mm-hmm. te góor ñu bëri dañuy bañ faju te góor ñi li tax yërëm ma yërëm soxna yi keneen bu jafe-jafe amee dañ koy yëkkati sànni ko ko jigéen ak te jàngoro ku ne day dal. Mm-hmm. natt ku ne day wàcc ci yow. Mm-hmm. te ku ne ci àdduna lii dal waa àdduna dal la. ndax du seet mm-hmm. kon yow mi nga xam ne da bëgg njaboot. xam nga pepp dugub. ñetti fan lay def ci biir bàq daal sax. indi gàncax. dugub ju mu mën a doon nag. moo xam mboq la. saafara ba nuy liggéey bu nu ko liggéeyee ba jox la ko Cheikh Talla bu la leeri ne guddi gii war nga ànd ak sa borom kër mm-hmm. saafara ba da nga cay defar lu mel ni ruy nga naan ko ànd ak sa borom kër balaa 40 jours yi di mat doom formé wu ci sa jëpp sa biir macha allah balaa ci sa biir macha allah boo koy defar nag ñett yi yi ma lay wax ngay jël mm-hmm. péppum dugub dina ànd ca boobu laax peppum mboqu peppum ceeb mhm. bu ko defee mu nekk ab laax aaya ba soog a ñëw mhm. bu aaya ba ñëwee rek balaa ñeent fukki ñeen fukki guddi yey mat mhm. insha allah si kàttanu yàlla da nga dégg sa doom ji mu ngi taxawee nii góor la wala jigéen la ndeysaan mag ñi buñ la daan liggéeyal ci wàllum njaboot dañu koy jaaree naan da ngay dégg léegoo léeg sax ci da ci gàttal nga dégg am na meer buy laax fii ci koñ bi pour nga am tu tànk pour nga am tout tànk ñu laaxal la fa tabaarakallaahu yii nag faaw nga mën a kii ndax nga mën a kii fa tabaarakallaahu yàlla yàlla barkeel mbuut dafa bari mm-hmm. yow mi bëgg tout ak lu fa man a fekk mm-hmm. si kàttanu yàlla yàlla dina la ko jox bu fekkee ne it ku góor ka dafa am problème boobu mm-hmm. bu rëy boobu baa ngeen ni wéetoo ci kaw la ni nga ca naane la cay naan ba mujj ci seen i biir incha allah yàlla dalay may tout tànk seetaan macha allah soxna soxna xujja ndeysaan man moo may daaneel fii quoi nee na ndeysaan billaahi kuy caaxaan du ànd ak mbay mm-hmm. moo tax ma am yaakaar ci yow mm-hmm. ma ne ko yaakaar nga ku ja yaakaar xam nga man seriñ yaakaar <laughs> man Serigne Mansour borom daare dañeex tola sama Serigne Serigne Mansour borom daare yi mm-hmm. bàyyi maam Malick sama Serigne moo fëgg sama bopp du ma waxee nafsu bakkan wa maa yantiqu la wa in huwa illaa wahyun yuuhaa ku topp bakkanam du tax ma wax lépp lu mu wax rek yàlla wax rus naa toog ak Cheikh Talla di wax ngir lu bëgg Cheikh Talla bëgg hmm. wala may waxee sama bakkan ngir bëgg ñi may seetaan bëgg wala ñu am xabtal ngir woo ma hmm. sama drap yi nekkuma ci boobu niveau sëriñ Babacar Sy sumay sëriñ doomi saalum saalum la hmm. yenn yi sama deret jomb ko bismillah Cheikh Talla macha allah jërëjëf Serigne Cissé mu Serigne Babacar ba tey ñu ànd ak moom xam naa ni waxtu bi mi ngi xëcc jeex waaye du mm. ñàkk rek ñu laal ci benn wala ñaari question mm. yoo xam ne door koo yëkkatee jotaay bi ndax euh, noddu gaa ngi noonu di bëgg a jibi tam wax yàlla te waxtu yàlla yi mm-hmm. moom lii am na solo jaamu yàlla la waaye waxtu yàlla yi dam faaw ñu jox la moom mën ta mm-hmm. ñàkk mm-hmm. Euh, Serigne Cissé dañoo nekk ci benn période boo xamante ni examen yaa ngi taxaw concours yaa ngi taxaw xale yi sonn nañu rawatina réew mi bëri nañu jàng ba am seen diplôme amuñu liggéey Serigne Cissé mu bëggoon nga wax ñoom lan nga leen mënal ba ñu nga xam ne ñu ngi def ay examen ñi ngi defi concours ñi bëgg liggéey ñëpp naka lañ mën a def tey jii ba sama borom jox leen tey jii lu ñu mën a suturloo ba mën ci dimbali seen i njaboot seen waay seen i waajur xam nga njàng mhm. la lay may nga dem ca kanam daa baax mhm. du benn du ñaar nga dégg kuy def examen ma ne ko indil ma big mhm. big booba doo ca def say note ba pare di jël ndaare man du ne sama dalaat bi dégguma du benn du ñaar. Mm-hmm. nga nekk ak man nit ñi toll ci examen ma ne la concours bu mu mën a doon ci àdduna. Mm-hmm. indil ma big. Mm-hmm. boo ko ca bindee not boo mën a bind jël premier waaye doo jël ndaare. wala sawfa yuxtiika rabbuka fatardaa. Cheikh Talla lu nu bëgg nañ jaar ci téereb yàlla bi. yàlla jox la ko me. amee kon yow mi nga xam ne da nga di ab jàngkat nda sa xel mi nëx hmm. wala ngay jàng ba pare lépp ne ci bopp bi kere buñ ne ñu ci examen nga nekk ni laa hmm. sëriñ ne hmm. yow moomu di ma seetaan nangu maa woo boo ma wooyee jóg ci nilaar ba ilaa yombi min si xam nga rabbi yi ifarax li sadri wa yasar li amri waxlul waxdatan min koo xaw xawli lu ko gën a man a dimbali ci nit am njàng amul lii ma wax la hmm. Hmm. lu ko gën a mën a dimbali nit ci am njàng amul dana wubbi sa dënn te dootu dugg dootu génnati hmm. ah ma wax la wala sawfa yuxtiika rabbuka fatarda lu ko gën a mën a dimbali nit ci am njàng amul te lu dugg dootul génn téereb yàlla bi li ci nekk ci ngëneel nga xam ko damay faral di wax ne ku bëgg a dem Kébémer nag boo baxee yoon ma dootoo dem wallaay doo dem waaye yow miy jàng ñaata yoon nga gis nit ñëw ne ma sëriñ si ma ne naan mu ne ma man de befem mënuma ko am ba lu ma fu ma defee rek du ma am mm-hmm. ma ne ko tàndal ma liibar laa sant ak bi mm-hmm. indil ma ko sama kër ma def ca la ma cay def nga dem jàngiwaat ba xam la ngay am mm-hmm. ki mos nag man naa weddi waaye ki mosagul bu mu weddi. Ah, dëgg dëgg. ñeme yàlla rek la jur. Mm-hmm. fa tabaarakallaahu seetaan la jàngkat yi daal loolu laa leen mënal. te ñun fekkee nañ am na. fekkee nga <laughs> <laughs> fekkee nga waaye <laughs> tabaarakallaahu yàlla bëri na. bokk bokk na ci ndeysaan ndeysaan euh, ku ci mel ni ndeysaan Omar Omar Omar Barxam nee na dalaa gëj a gis Maris ma ne ko xam naa ne fan yitte yee bëri. Mm-hmm. ñàkk a toog bi ndeysaan. Mm-hmm. nga xam ne gars ñi ndeysaan sëñ Cissé sëñ Cissé nit ñi dañoo baax te bëgg lu baax. xam nga nit ñi man damay faral di wax ne jaam ñu noo mel jaam ñee la ko def ndax ñoo na seetaan ba xàmmee la nga génn ñu ne la sëriñ Cissé hmm. maa ngi lay siyaar hmm. bu la xoolatoo du la xàmme hmm. kon ki la xool ba xàmme la ëmbal la cofeel boole koo ki ñaam boole ki siyaara kooku da koy ñaanal aw fanam gudd ni aw doy kii wax nag kii déglu rek kay mbokkam kii dégluwul du dara am kon ñoom ñëpp maa ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal yàlla. di ko sàkku ci ñoom it nu ñaanal nu ko. Mm-hmm. ndax ñun ni ñuy soxlaa ci ñun ñaan mm-hmm. noonu la ñuy soxlaa ci ñoom ñaan. Mm-hmm. kon yàlla na yàlla kàttanal leen kàttanal lu fu waay mën a nekk ci àdduna rek mhm. yal na defal leen jàmm ñoom ñu ñuy bàyyi xel ñëpp ñëpp ci dara ji Serigne Babacar alayhi salaatu wa salaam na ndeysaan mu mhm. macha allah waaw loolu defi ne yëfama moom wax dëgg mhm. yàlla macha allah nu ngi koy siyaar a ko béggee bu baax a baax wax dëgg yàlla wuli mata Sacré Cœur moom it mi ngi nuyoo waat wuli soxna ko jotam nee na yal na yàlla defal la jàmm amiin sa su su su su ma la aar ndeysaan sëñ bi ñii dañuy li ñuy wax yëpp dafa dafa dafa dafa dafa mujj a bëri waaye daal sëñ Cissé xam naa ne daal fi ni fi fi fi fi ni koy jeexale rek hmm. mooy mooy mooy wax dëgg yàlla dama daan gis nga daan faral am ñoo xam ne bu doon jëflanteeg ñoom da nga leen doon wax ñu ni la siwo ñu la bale hmm. Hmm. sangatu bale gi xam nga bale foofu fekk ci sangat nga war Cissé sangat nga laa bëggoon nga wax xam nga Cheikh Talla yow da nga bëgg a déglu ca aada ya <laughs> da nga bëgg a delloo ca cosaan sax démb dafa am solo démb moo waral sax ñu naan tey waaye Cheikh Tall mm-hmm. yow mi nga xam ne danga dem ba foog ne sa yaram tilim na ba mënatoo am dara mm-hmm. siwo bu bees sàq bale mm-hmm. bu ma subale bu ma la ci jàmbalee boo ko sangoo juróom-ñaari fan eh. noo mën a def da sant ba yëg ne sant nga Cheikh Tall lu fekkoon ci yow lu bokkul ci yow yi ni bale di génne tilim la koy génne ci yow. te ci biir sangat gi fi ma koy jàmbee la may wax ne ma kii baa muy sangoo sangat gi na joxe nangam. Mm. soog a sangoo sangat gi. ndeysaan seetaan <laughs> la yal na yàlla fenn lu jàmm. allahumma bi yàlla yëwee nu bëgg lool ci toogaay bi toogal yow. ndeysaan di la ñaanal yàlla tawfiix ak sutura ci dara jëy Serigne Babacar Sy wa salaam macha allah jërëjëf Serigne Cissé mu Serigne Babacar am nañu mbégte loolu wax dëgg yàlla lii dama ko namoon loolu ndax wax dëgg yàlla nii lañ ko daan defee ci jamono yu yàgg yàgg yàgg doon belloo hmm. ndax daal diggante tàkkusaan ak timis sunu suñu yëfa woon diggante tisbaar ak timis tàkkusaan suñu yëfa wax dëgg yàlla def nañ ci lu ne waxtaan nañ ci lu ne euh, te ku ne gis nañ ko ci nit bawoon na fu ne ñëw fekk si la nit koo xamante ne li nga doon joxe léegi exemple nit koo xam ne jóge woon boori Kédougou hmm. ñu ni ko woon da ngay faatu mu daw ñëw ba yow keroog la ko jox yëpp ba mu koy jox ci sama loxo nga ko jaarale. loolu ba tukul nag ba mu amee taw feex ba mu ci ay man nii la woowaat téléphone nga ne ko dootoo a gis ndax yow mi sopp su la bàyyee nga di ma gis sax hmm. mën naa jur leneen kon nga xam ne li nga wax ni sànq firnde boobu man seede laa ci hmm. te nag wa maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa li may wax gën na ma te sama borom képp laa koy seede loo wax dëgg yàlla kon ñu lay sant bu baax a baax di la ñaanal la fan ak wér Euh, ci kàttanu sama borom di leen wax ne rek yéen xam ne yéen ngi ci biir euh, live bi macha allah bi mën ngeen a profité ngeen jël numéro Serigne Cissé muy 77 297 69 51 77 297 69. cinquante 51 mooy numéro bi nga xamante ni ci ngeen ko mën a jotee waaye itam mooy numéro whatsapp bi kii moom nee na woo na la ba sonn waaye na ngeen xam ne nag nit koo xamante ni da benn nit bu war a lijjanti yi tey téeméeru doomu aadama mën na mën naa bañ a yomb jot waaye nee naa leen bàyyi leen message bi ci whatsapp bi bu ko gisee rek dana leen woo wala mu def leen sin su ko defee waxtaan wi daal di fay a am la ngay seen yitte ngeen daal di koy ngeen daal di koy waxtaanee rek su ko defee li ci des ñu daal di koy jël bàyyi ko ci loxo suñu borom ku soxna ku jël xol sedd na moom mooy yaayu xale yi xolam sedd na loolu macha allah yàlla fay la te defal la jàmm kon seen Cissé kàddu gu mujj gi lan lay doon ñu yëkkatee ko jotaay bi tey macha allah ñaanal di ñaan tabaski gi ñu jëm. Mm. lépp loo xam ne waaye bëgg na ko ci rek yàlla na yàlla yombalal ko ko. allahumma ñu tabaski ko ci jàmm. Mm-hmm. génn ci ci jàmm te luñ ci jëm yàlla na ko borom bi nangu. ci dara ji yonent bi di ñaan ci réew mi yàlla fi yàlla def jàmm. Mm-hmm, defal ko xalifa sénéro yi. Mm-hmm. defal ko mboolem ku fi nekk. te naan leen waa dahwaana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum jërë ngeen jëf. maaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu Serigne Cissé mu Serigne Babacar moom lañ àndaloon ci live bi di leen wax ne rek xëy na àjjuma wala samedi incha rabbi hmm. danañ wax dëgg yàlla waxtaane waat leen ci réew mi waxtaane waat leen tam ci xam-xam wax dëgg yàlla waxtaane waat tam ci li nga xamante ni mooy actualité ndax loolee itam mënta ñàkk ndax ci réew mi lañ ne bokk ci doon ay citoyen kon waxtaane réew mi tam daf ñoo war waaye ba 297 69 51 boo ci wootee incha allahu rabi di nga mën a jot Serigne Cissé mu Serigne Babacar jox leen dig daje incha allahu rabi taala ajjuma wala samedi ci kàttanu suñu borom ci waxtu yi rek di ginnaaw tàkkusaan rek fas yéene ci àndal rek daal leen fas yéene dégalaat ci yéen ñi nga xam ne yéen ni yéen a yéen a sopp Serigne Cissé mu Serigne Babacar ko sopp ñëpp nag dañ koo sopp ñii ngir Serigne Babacar ñii ay ndax ak baaxam ñii ndax ak oyofam ñii ndax bëri yitteem waaye nag al mënta mel neneen nu dul ñii wax dëgg yàlla te réew mi mooy li ñuy wax mag ñi fi jaar ñëpp te dégg nga nu muy nuyoo ku ne xam na ni taal yëpp sëñ Babacar la waaye amul xàjj ak seen ci kër sëñ Touba wala kër maam Seydina Limam wala kër Bokkunta Ndiassane wala kër Cheikh Ibrahima Niass ka mu dëkk amu ci xàjj seen kon nag wax dëgg yàlla lii mooy àdduna te lii mooy réew mi te lii mooy Sénégal yal nañu yàlla wane la waat ci jàmm salaam jóg déedéet incha suñu beneen jotaay ak yéen